faut dire que la presse est violentée wax ko la presse est violentée ñu ngi leen di gazé Mor. une situation très regrettable pour démocratie majeure comme le Sénégal nous avons connu plusieurs élections depuis lors et pourtant on n'a jamais connu autant de violence surtout autant de violence à l'endroit d'un leader politique, le président Ousmane Sonko, président du passé. Personne ne peut comprendre que depuis plus de 6, voire 7, 8 mois, qu'il soit presque en résidence surveillée, alors que c'est un patriote, compatriote libre qui doit pouvoir circuler, qui doit pouvoir bénéficier comme tout le monde de protection et on doit lui permettre à ce que sa famille, qui doit faire ses courses et autres, ces enfants qui doivent aller. Euh, ce que le président Macky Sall lui fait subir. À chaque fois et à l'approche d'une élection, tous les leaders ont eu à bénéficier d'une pré-campagne. Et hier encore, dans certains endroits, vous avez vu certains leaders de l'APR faire leur caravane sans être inquiétés. Qu'est-ce peut expliquer aujourd'hui que le président Ousmane Sonko qui veuille quitter Ziguinchor et rallier Dakar par une caravane qu'on lui empêche et on l'extirpe de sa voiture pour l'amener ici à la cité Kirgoldi euh, par force avec les éléments des, des, des FDS. Une situation intolérable, incompréhensible et je lance un appel au président Macky Sall qu'il sache qu'il ne peut pas instaurer la dictature dans ce pays. Et il le sait. parce qu'il était avec nous en 2011. Ce qu'on est en train de vivre, certainement c'est une intensité qu'on la vit, mais c'est une situation qu'on a connue en 2011 et il sait que le peuple était déterminé et il l'est autant aujourd'hui. Donc, vouloir museler l'opposition, vouloir museler le président Ousmane Sonko, c'est peine perdue. Il faut qu'il accepte à chaque leader sa popularité, qu'il accepte à chaque leader son électorat. Ousmane Sonko bénéficie d'une popularité que les Sénégalais ont voulu aujourd'hui. À quoi on n'a qu'à accepter cela et vivre tranquillement. Nous allons vers Ce sont les peuples, le peuple, ce sont les populations sénégalaises qui doivent choisir le dirigeant. Et il ne peut pas se substituer à ce peuple à vouloir, avant même les élections, leur choisir des candidats et aujourd'hui vouloir, dans ces circonstances, engager un dialogue. Je pense que quand même, il y a lieu à ce qu'il recule. En tout cas, nous, de Yewi Askanoui, comme de F24, nous restons plus que jamais mobilisés et déterminés. On était là-bas tout à l'heure, on n'était même pas à 500 mètres d'ici. Vous les avez vus, ils nous ont chargés, gazés. On est encore là et on compte rester ici parce que pour nous, il faut nécessairement que le président Ousmane Sonko soit libéré parce que ça, c'est une prise d'otage qui ne dit pas son nom. quand on te prend de force et on t'amène chez toi et que tu es barricadé, et même ceux qui veulent te rendre visite ne peuvent pas le faire, c'est extrêmement grave dans ce pays-là. Le président Magui ne l'a pas subi. Tous les autres opposants, on était là, ne l'ont pas subi. Ça fait 19 ans de présence. Nous avons vécu au moins deux alternances et nous savons comment ça s'est passé. Et nous savons en son temps comment l'opposition et le en, en, en, exercice du pouvoir, ce qui était euh, les présidents de la République, nous avons et nous savons comment ils ont eu autant de respect pour les opposants et comment ils ont eu à les ménager pour qu'ils puissent exercer le devoir d'opposant. Ce qu'aujourd'hui le président Macky Sall ne veut pas faire, mais c'est à nous, et c'est le cas aujourd'hui, de, de, nous mobiliser et nous allons justement faire face à la dictature Oui, mais bien évidemment, bien évidemment. Tu as eu à le joindre au téléphone Mais bien évidemment. Donc on n'a pas séquestré, avoir quelqu'un par plusieurs biais. Ah, ah, ah, di wax rek ni kenn mënul accepter situation bii nga xam ni moom la ñuy vivre ci Sénégal président Macky Sall teg na ko te jaadul parce que quand même. opposition yàgg na am yàgg na am et na ñuy nekk ensemble pour le de notre démocratie te lii wa def karabaanam gëni que fii ngay yem dama yo koy jële dugal la sama blende indi la cité kër góor bi loolu mosul am fenn te waxtu bi ñu koy defee gis ngeen ay leader APR pourquoi vouloir aujourd'hui mettre Ousmane Sonko ci situation bi nga xam ni benn opposant mosu et li le président Macky Sall war xam mooy nit yàlla bu ko joxee popularité nangul ko ko parce que mënoo ko tere la et tey li ko war li ko war a mooy nu mu organiser élection libre et transparente kuy dem dem ñuy bokk bokk bu ko defee nu jàll ci leneen mënul nag tey jii nii wax ni dictature la bëgg indi ci Sénégal bi nga xam ni ñun bi ñuy xeex démb ñoo ngi woon ak moom xam na ni lii Sénégalais yi duñ ko nangu kon na taxaw alors qu'il est encore temps organiser élection libre et transparente ñi war a bokk bokk moom du bokk bu ko defee ñu avancer mais li wér te wér mooy 2011 on la là ça fait 19 ans de présence politique dans l'opposition wu ñu benn yoon xam na ni ñun amul lu nu mën a xoqatal et dictature bu mu bëgg def du ko fi def li nga xam ni mënul ne da ngay xam ni mënul ne nga noppal sa bopp noppal Sénégal yi noppal FDS yi noppal presse bi li ngeen nekkee guddi ak bëccëg tam mu teg leen ko mais tegu ko fenn FDS yi nii mais ay père de famille lañu mais depuis presque six mois tous les jours ñoo ngi ci biti est-ce que mës ngeen gis régime bu leen sumetre ci lu méttee ni mais mosul am na xalaat loolu te loolu taxul tey ci nii ñu dellu ginnaaw du ñu dellu artarfatul ay nii parce que loolu du du du ko bëggoon sax mënuñu ko am na posture yi nga xam ni buñ ko bëggoon sax mënuñu ko parce que sénégalais mooy un guerrier donc loolu da ko war a xam ci boppam mënuñu xoqatal ba nu reculer altarfatul ay ni et on était avec lui ici en 2011 nga baal ma man dama bëgg xam ne bu nekk situation bi wéy na nii lan ngeen di lan moo naka nekk seen taxawaay suñu taxawaay mooy jàkkaarloo ñaaw la ñu koy def nag au nom de son parti Pastef bokk ci Yewwi Askan Wi muy jógee Ziguinchor di ñibbisi ñu koy kar di ko gazé ba mu am ci xale bu ci faatu démb nag ñu enlevé ko en toute légalité parce que ministre de l'intérieur li mu wax parce que bu fekkente ne nit dafa def koy jàpp def ko teg ci yoon munoo da nga koy enlevé parce que buggoo mu procéder ci ci nemmeeku tur bi mu doon def parce que day indi ay trouble ba tax nga téye ko ne ko coppet ci yoon bi yóbbu ko këram teg ba pare nag def ko en résistance surveillée sans benn décision de justice boo xamante ne am na ci xëy na bu ñu toogoon suñu kër yi rek di wax nañu du ñu xam li ñuy wax li dafa am mais ñëw nañu ba fii gis ngeen teg nañu accès yëpp tere nit ñi ñu dem ci moom mais au lieu njëkk teraanga ñu wax nit ñi lan moo tax Ousmane Sonko amul droit recevoir visite mais au contraire dañu gazer nit ñi gazer des députés gazer des leaders politiques gazer des citoyens euh, au nom vraiment de cette république euh, bananière ce n'est pas possible ñun sunu ay maam dañ leen tënkoon dem jaayi leen def leen ay esclaves du ñu nangu nag ñu toog ci Sénégal boo xamante ne da nit ki da nga koy tëj këram tere ko xañ ko droit am yëpp ñun ñi di ko nangu voilà donc loolu mooy li ngeen gis ñëpp ko gis nag amul lu ñuy nettali voilà. on va au siège du peuple. on va au siège du peuple. waaw non non pas tellement pas tellement quoi.